bismillahi arrahmaani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen balu àq di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ak weer wu tedd wi di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu nangul ñu suñuy jaamu yàlla yépp jéggal ñu suñuy bàkkaar di ko ñaan ci ak mbaaxam mu yàggal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha te sàmm ko te yokk ak wér ak kàttan saa bu ñu duggee ci weer wu tedd wi di weeru safar xel yi ak xol yi yépp dañuy dëgmal bis bi nga xam ne mooy bisub fukkeel bi ak juróom-ñett mu doon bis boo xam ne bisub sant suñu boroom subhaanahu wa taala bisub mbégte bisub jaamu yàlla bis boo xam ne sëriñ bi radiallahu taala anhu mu digle woon ne bu dikkatee ñu santale ko ci boroomam ci xéewal yu rëy yi nga xam ne suñu boroom defal na ko ko muy bés bi nga xam ne ci la nattoom yi tàmbali nattu yi nga xam ne nag li mu am ci suñu boroom muy ay xéewal yoo xam ne day wax ne du ko tudd waaye da ciy sant suñu boroom subhanahu wa taala ndax yaatu gim yaatu ak rëy gim rëy doon xéewal yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala da cee feeñal ak tabam feeñal ci ak mbaaxam kon bis boobu ci la digle saa bu ñëwatee ñu santale ko ci boroomam muy nag xew-xew bu màgg boo xam ne laaj na waajal laaj na it di fàttaliku saa bu nekk naka lañ ko war jëmmale naka lañ ko war a dundale naka lañu war a jëfee ndigalul sëriñ bi loole ndax njariñ yi ci nekk njariñ yu yaatu yu ci nekk waaye jeexit yu rëy yi nga xam ne amal na ko ñi koy màggal amal ko réew mi yépp tax na ñu jox war a jox yitte niñ koy waajale di bàyyi xelit ni ñuy jëfee ndigal loolu màggaay boobu ak solo soosu tax na naka jekk ñi fi wuutu sëriñ bi baaxoo di fàttali bis bi saabu bu di ko woote di yeesal ndigalul sëriñ bi cheikh mohamad muntaka xafisahu llahu taala wa ayadahu wa nasarahu bi weer wi dugge def na na mu daan def fàttali ndigalul sëriñ bi waaye soññee ci ni ñu koy war a waajale ak ni ñu koy war a dundale muy kàddu gi nga xam ne moom la ubbee woote bi ubbil Cheikh Mouhamad Bachir mi nga xam ne moo doon jottali ay kàddoom waaye kàddu yooyu mu jiital kàddu yu gàtt la waaye yu fees dell la yoo xam ne ci lañ bëgg dellusiwaat yi nga xam ne digle na ko ci ak li nga xam ne indi na ko ci muy loo xam ne dana njariñ buñ ko déggee ak suñ ko jëfee moo tax ñu bëgg a dellusiwaat ci ubbi ko bu nga xam ne ubbil na ko bu woote bi muy ab soññee bu ama am solo mu am ñetti mbir yoo xam ne sëriñ bi da cee taxaw da cee taxaw muy mbir yu am solo yu mat a jàpp yu mat a bàyyi xel mbir mi nga xam ne sëriñ bi njëkk na ko e, njëkk na cee ñëw ci ay kàddoom yu sell yi mooy nu teewlu fan yi ñu nekk ñu am ci ak bu baax ak teewlu mën a waajal bu baax bisub màggal gi waajtaay woowe it ñu xam nanu koy defe teewlu ndigalul sëriñ bi waaye waajal ko ci jàng alquran alquranul karim sëriñ bi nee na nañ ko bàyyi xel bu baax te fonk ko mu digle kenn ku nekk ku ko man nga jàng ñetti kaamil koo xam ne yàlla dogal ne mënoo ko yit nga jàng benn kaamil ba ca loo man lépp lu jàppandi rekk nga def la la jàppandi ci njàngum alquran loolee nag sëriñ bi dafa wax ne nañ ca yéene yeesal suñu jaayante suñu digg ak sëriñ bi waaye yéene ci jëfe ndigalam li nga xam ne moom la digle ci ñu santale ko boroomam sëriñ bi digal ñépp góor ak jigéen mag ak ndaw ci ñu def suñu yitte ci dellu ci suñu boroom ci fan yi nga xam ne moom lañ tollu muy taqoog alquran taqoog njàngum xasida ba ba ñuy àgg ca bis ba ñi nga xam ne dañuy jàng xasida di ko yëkkati muy ñiy kuréel nañu ca nekk ak ñi nga xam dañ koy jàng di ko durus nañu ca nekk seen kem kàttan loole nag ngir yéene ca sant sant sëñ bi boroomam waaye sant ci sëriñ bi moom ci boppam mu mel ni Cheikh Mouhamadou Mountakha daf ñuy fàttali di ñu jàngalaat ni nga xam ne ni la sëriñ bi waxoon ne noonu lay sante boroomam te mooy sant ko ci ak jaamu yàlla sant ko ci li mu farataal sant ko ci limu mu sunnaal ndax waxoon na ne na shukurahu la daa daari salaam wa bi jismin wa qilaam wax ne alayya shukruhu bi fardin wa sunan indahuma wa inda daari kon sëriñ bi moo ne dama war yéene sant suñu borom subhaanahu ca daaru salaam ak tuuba wax ne warlu naa sant ko ci farata ak sunna ca daaru salaam ak tuuba ak daarul minan kon tomb boobu bu mat a bàyyi xel mooy ni ñu war a waajale màggal gi ci jàng alquran ak xasida ak jëf yu baax yi nga xam ne dañ cee war a teewlu suñu boroom nekk ci lu baax ngir waajale ko bis bi ñaareelu mbir mi nga xam ne sëriñ bi ñëw na ci muy mu ama ama am solo te mooy bàyyi xel ay teggin muy taqoo ak i teggin ci suñu diggante ci suñu jëflante waaye taqoo ak i teggin bu ñuy jëflanteeg ñi nga xam ne ñoo ñëw fekk si sëriñ bi ngir dundal ngir wuy si wooteem bi dundal bisam bii muy santale ko suñu borom subhanahu wa taala teggin day lu am solo mooy lenn lu nekk nga xool na mu gën a rafete na ko suñu borom subhanahu wa taala diglee nga defe ko nam ko bëgge te rafetal ko am ay teggin amub yar ci say wax ak ci say jëf ak ci sa jëflante loolu ndax képp koo xam ne mi ngi def lu baax bëgg ca jariñu war na ko booleeg ab ab yar ak i teggin ndax sëriñ bi kat moo xamaloon ne képp kuy sàkku lu baax te boolewoo ca ay teggin nam ca war a jariñoo du ca jariñoo noona sëriñ waxoon na is kullu man bi gayrihi raama tibaa fa innahu yuxramu fawzan wantifa koo xam ne yaa ngi sàkkoo topp te tegoo ko ci ay teggin na xam ne la muy wut jariñu ga muy wut dañ ko ko xañ ndax nee na lépp loo xam ne nit a ngi koy denc muy gànjar goo xam ne da ko fonk la ci ëpp solo mooy ay teggin moo xam ci àdduna la moo xam ci àllaaxira la mu ne wa huwa fi daarayni xayru kanzi wa xayru matazza bihi zu izzi sëriñ bi sëriñ bu mag bi xamaloon nañu ne lépp loo xam ne nit a ngi koy waaje la ca gën a jekk mooy taqoo ak i teggin ndax ay teggin ci la ñuy mën a àgg ci suñu borom subhanahu wa taala waaye ci la ab jaam di mën a yegge tàbbi àjjana yàlla na ko yàlla defal ilam xabaana allahu fi daarayni bi fadlihi subhanahu nuurayni bi anna xayra ma bihi zdaana alfata talaazumu l adabi xaythuma ata li annahu bihi ila arrahmaani yasilu abdun wa ila aljinaani kon nag nañ fexe ba sàmm teggin yooyu nga xam ne moom la sëriñ bi digle ñu war koo sàmm ci suñu bopp suñu diggante waaye war koo sàmm ci suñu digganteeg ñi nga xam ne ñooy ñëw ñu war leen a teertu ci ay yar ak ay teggin ñetteelu tomb bi nga xam ne sëriñ bi indi na ko ci kàddoom yooyu nga xam ne yu tënku la ndax weesu daanaka juróomi minute la waaye dafa fees dell ba ca ñetteel mooy nag ni ñu war a sàmmee ormay dëkk bii di tuuba ak taxawaayu ndaw ñi ci sàmm googu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 أشهد أن محمدا fàttale ni ñu war a waajale bis bi ci jàng alquran jàng xasida jublu ci suñu boroom subhaanahu wa da ca teg ni ñu war a bàyyee xel ay teggin sàmmante ki teggin ci suñu diggante ak suñu digganteek ñi nga xam ne ñoo nu nar fekk si ci bisub sëriñ bi waaye mu ñëw nag ci ne wax dolli ci ne li nga xam ne lu ñu war a bàyyi xel la muy ormay dëkk bi di Tuuba di fàttaliku màggaayu dëkk bi ak fi ko sëriñ bi tegoon ni ñu ko war a jàppee ni ñu fi war a nekkee ni ñu war a nekkee sëriñ bi loolu dafa mat di bàyyi xel saa bu nekk sëriñ bi xamal ñu ne orma yi dëkk bi mooy orma yi sëriñ bi képp koo xam ne sàmmoo orma yi dëkk bi bàyyi woo xel orma yi dëkk bi day mel ne sàmmal sàmmoo orma yi sëriñ bi loolu nag lu diis la lu mat a dégg kenn ku nekk bàyyi xel saw nekkiin bàyyi xel la ngay wax wala la ngay def ndax méngoo na ak yi dëkk bi wala méngoowuñ mu wax ne loolu dafa war ci waxtu yu nekk waaye rawatina ci fan yi ñu nekk kon ñu war ko bàyyi xel bu baax war a fàttaliku ne sëriñ bi kat amoon na lu ñaanoon ñaanoon ne wa xujjatan ala muxaalifin loole nag lu mat a bàyyi xel la sëñ bi ñaanoon dëkk bi képp koo xam ne yaa ngi fi def lu wuuteeg lu suñu boroom gërëm na xam ne ëllëg dëkk bi mooy nekk aw lay mooy taxaw layoog moom ci boppam kon nag sëriñ bi bàyyiloo nañu xel lool sàmm ormay dëkk bi waaye nag ni mu nu ko bàyyiloo xel nag da caa teg lu am solo mooy ndaw ñi seen taxawaay ci loolu ñu war a xam ne ñoo war a jiitu ci sàmm ormay dëkk bi lépp loo lu ñu mën a yëngu yëngu ci sëriñ bi moo ko gën kon loolu nag ab fàttali la bu am solo boo xam ne ndaw ñëpp war nañ koo yëg ñoo war a jiitu ci lépp loo xam ne sëriñ bi bëgg ci dëkk bi ñu fexe ba jëmale ci seen yitte waaye mu wax nag ne loo luñ cay def it dañ koy teg ci ab yar ak i teggin loolu kon lañ cay déggee mooy ndaw ñi la leen war a jiital la ñu war a jiital mooy ñoom ci seen bopp ñu am yar ami teggin xam li dëkk bi laaj xam li ormay dëkk bi laaj loole buñ ko sàmmee ci seen bopp rek dinañ sàmm ormay dëkk bi ca dinañ mën a fexe ba képp koo xam ne wala lépp loo xam ne dëppoo wut ak dëkk bi ñu mën caa taxaw kon loolu mooy liñ bëggoon a fàttali ci waxtaanu sëriñ bi gën bëgg ngir gën koo bàyyi xel ñu doog ñëw nag ngir ci xutba bi nga xam ne mooy xutba tey bi te euh, jëm rek ci fàttali xéewali suñu boroom yi mu defal jullit ñi ginnaaw bi mu jullee ci yont bi sallallahu ñu sante yàlla julli ci yonte bi sallallahu sallam dafa wax ne yàlla ci ak mbaaxam ak ngëneelam waxtu wu nekk mi ngi waajalal lislaam mbooloo moo xam ne dañuy sellal seeni jëf dañuy sax ci ak njub waaye dañuy sax ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag la ko waral mooy ci suñ boroom subhanahu wa dafa bind nit ñi ngir ñu jaamu ko ndax wa ma umiru illa li yaabudullaha muxlisina lahu diin waaye jaamu googee nag da ko teg ci ñaari sart yoo xam ne deesu ko nangu lu may ñaari sart yooyu daje te mooy sellal jaamu ga te teg ko ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ne mooy jàngalekat bu bi jiitu ci xam xamal xeet wi li yàlla bëgg ci ñoom te mu taxaw taxawaay bu mat sëkk ci jottali woote li yàlla bëgg lim ko yàlla yónni woon mu jotal ko jotal gu mat sëkk laabiire xeet wi ba ba muy wuy ji boroomam mu bàyyi fi saxaaba yi ginnaaw bu bu ñu màndee ci euh, bëtub alquran ci nàmpee ci weenu alquran ak sunna su bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw saxaaba yooye taabiyoon yi ñëw topp ci seen ginnaaw di aar lislaam ni ko yonent bi salallahu alayhi wa sallam waxe woon ne waxtu wu nekk dana am kuréel goo xam ne ci sama xeet lañuy bokk dañuy sax dàkk ci dëgg képp ku leen bàyyi it du leen wàññi dara képp ku wuuteeg ñoom it du leen wàññi dara ba yàlla di ñëw ak mbiram te mooy ba yowmal qiyaam kon ci ñooñu nga xam ne ñoo sax ci sunna sax ci yoonu njub ñoom ci ñoom la yàlla di sàmmee sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xam ne moom ci boppam mooy sàmm alquran wax ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun kon loolu la moo moom moom moom la tënk ci xutba bu njëkk bi ci xutba bu ñaar bi nag mu xam ne ne suñu borom subhanahu wa taala dafa waajal ay nit ñoo xam ne ñu sellal lañuy doon ñoo xam ne ñooy sax ci ak njub sax ci sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa moom suñ borom moomu nag ci ak mbaaxam ci la feeñal kaawteef goo xam ne dafa bokk ci ay kawtéefam te mooy xadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di cheikhul xadim nga xam ne fu ñu aw turam jube lënk mu lënkaloog turu yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne ak dundam gépp da ko sax ci gindi jaam ñi ak yar leen jëmale leen ci jaamu yàlla ni nga xam ne noonu la ko yàlla bëggee te mooy jaamu yàlla goo xam ne dañ koy teg ci yoon wi sallallahu alayhi wa sallam xàlloon mooy sunna si yonent bi sallallahu sallam te mooy ay waxam ak i jëfam moom yonent bi nga xam ne moom la yàlla wax ne wa in tutiuhu tahtadu nga xam ne sëriñ bi moomu nga xam ne suñu borom moo ko feeñal nag moom moo leeral yoon wi ba mu leer nañ ñi nga xam ne képp koo xam ne nar ngaa jub nar ngaa mucc doo ko wàcc képp koo xam ne wàcc nga ko nag mooy kenara alku mu teral alxuraan lool aar ko mokkalloo ko njabootam ak i taalibeem ba ñoom ñëpp ñu mujj euh, jaar ci jub xocc jaar ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa ci jaariin wu rafet ci doxalin wu rafet ci nekkin wu rafet ñoom ci ñoom yàlla jaarale ci sàmm sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtu wu nekk muy génne ci ñoom ay boroomi xam-xam yu dëgg yu dëggu yu dëggal yoo xam ne seen xam-xam xam-xam bu leer la bu wóor la ñuy jàngale ñoom it di génne ñoo xam ne ay biddiw lañuy doon ak i làmp yoo xam ne képp ku leen topp doo réer doo euh, texe di yàll na yàlla fay leen fayal ñu leen fayal leen xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngën ji pay yàlla nañ suñu borom subhanahu wa taala jéggal ci jéggal leen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. muhammad rasul سبيلا نحمده تعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره اعتمادا على عفوه وتعليلا ونتوكل في الأمور كلها عليه وكفى بالله وكيلا wasalaatu wasalaamu ala zurwati sharafi lay laa yuxlaqu lahu maxiila wa ala aalihi wa saxbihi alladina faddalahum allahu ala alummati تفضيلا أما بعد فيا عباد الله من المعلوم المتواتر لدى كافة أهل الإسلام أن الله سبحانه خلق الخلق لحكمة عظيمة وهي عبادته سبحانه دون سواه قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وجعل لعبادته شرطين أساسيين لا تقبل العبادة إلا بهما وهما إخلاص العبادة له وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم المعلم الأول لأمته بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة والتحق, والتحق بالرفيق الأعلى تاركا صحابته وقد استقوا من معين القرآن الفياض ومن ينبوع سنة الزخار ثم جاء بعدهم التابعون وتابعوا التابعين يدافعون عن عبادته ويغضون عنه بل كانوا كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك فحفظ الله بهم السنه كما تكفل هو بحفظ القرآن وصونه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون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 inna allaha subhanahu wa taala laa yazaalu bimannihi wa fadlihi yuqayyidu lilislaami daa'iman shirhimatan min almuxlisiin yahbutuuna ala almanhaji alqawiim wa taaliimi السني الحكيم والتعليم السني الحكيم فأظهر لهذا الدين آية من آيات الله الذي هو خديم الرسول صلى الله عليه وسلم المضاف اسمه المضاف اسمه إلى اسمه كالصلة للموصول القائم بالتوجيه للعباد إلى تحقيق عبادة الله كما يحبه ويرضاه وهو طريق السنة صلى الله طريق الرسول صلى الله عليه وسلم المتمثلة في أقواله وأفعاله لقوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا أنار المحجة البيضاء حتى صار ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أكرم القرآن وحمى حماه وحفظه أولاده ومريديه فأصبحوا بفضل الله summa bi xusni tawjiihi lahum naahijiina manhajahu fi suluukin xasan wa xafida allahu bihim sunnata wala yazaalu yadharu fihim ulamaau muhaqiquun تخرج على يدي على أيديهم نجوم ومصابيح من تبعهم لا يضل ولا يشقى جزاهم الله عنا خيرا وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء آمين يغفر الله لنا ولكم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 d'abord allah allah akbar allah akbar allah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 سمع الله حبنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله allahu akbar allahu akbar allahu akbar asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.